Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fedd indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee muy bis bu rëy ñu Sëriñ Tuubaa santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci lañ doon tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def wérati gi rek xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci àdduna باتاخنا صاح ماغن تي بي نكوي واج ليپ لو خامني خامنا من نا اني لن سي جالو كو غير سامونتك في ادنا تول دا دانيو نيك سي بيرو ريو سيخ كو ني بوك ريو نيك سي بير ادنا سيخ كو واد كون مونو نيو بيتو نيكو شيخ مو دون تخادي واخ يلا دفنا غير خام في أدنى زون تاع نصدقو دفكو كي خارل يين لي تودي لي ميزيو كونفرانس نيم كو دفي ني نكو سانتي كيب كو خانم مان غا جيل ماسكي دي ديكو تاك ني خامنا دا خين ني امنا سي جالو كور ناخ ньо خام دا تاخ ني نجيل كالا ديكو مورو ناخ لا ضرر ولا ضرر دو لو تا دو لو كير دون كون سيرين بي مي نجي سوني نيب دي جي سان سوني بوك تال بي ني خامني xam ne màggal gi bu sañoon ñëpp dañ fi indaale gër te bu ñu fi jugee itam eh, ak wér topp rek mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa màgg te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi dañuy yokk kon waras na ci def yitte ngir xool nu ñuy fexee ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne defewaat yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi résultat bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci it juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi. mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi. fa saasa it la jox ministère bi ko yor digal ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël budget bi 3 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu Sëriñ Touba la ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak dalum xel ànd ca rafet jox ngir xam ne Sëriñ Touba kat euh, suñ borom feggal ne ko ci aafatu ak 所以很多那些。